dara. man ku ma xam-xam ne liggéey bi ma ko toog. déedéet man ay liggéey. cong boo ay liggéey man lu may def damay def dëggantaan jaay. du ma def naka yaay. kon daal bu ñu ñu defee fooy nga def dëgg. yee man dëggantaan jaay laay def man naka yaay di cokk noonu di aaral di jaay ala ba def naa lii. man damay gën a muur gi ne fii. ngay muur yow. waa gi ne fii. kenn wax yii. xee gi ne fii. amul yii.

jusqu'à 21h avec l'une des très belles voix de la musique